Serigne Alioune Sow Serigne Alioune Sow mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1912 ci dëkk bu ñuy wax nag na Sakho nekk nag ci suuf sii nag di bawal ci wetu dëkk bii nag di Ndoulo ci dëkk boobu nag la feeñee jamono muy doomu soxna Khady Ka ak Serigne El Hadji Mouhamadou Lamine Sow Serigne Alioune Sow nag bi mu feeñee jamono waajuram nag Serigne Mouhamadou Lamine Sow mi ngi ko fayee nag saxaabab yonent bii di Seydina Alioune am na nag ñu mu bokkal nag soxna Khady Ka ak Serigne Mouhamadou Lamine Sow ñu mën caa ràññee nag sëriñ Abdourahmane Sow ibnu soxna soxna xadi ka ummu sëriñ muhammadu lamin sow soxna assu sow bintu soxna xadi ka bintu sëriñ muhammadu lamin sow soxna faati sow bintu soxna xadi ka bintu sëriñ muhammadu lamin sow ak moom seydina alin sow ibnu soxna xadi ka ibnu sëriñ muhammadu lamin sow ñett nag la bokkal waajur wu jigéen nag ak waajur wu góor ak moom nag muy ñeent ngir xamale leen ak njaboot ji mu bokkal waajur wu góor nag ak waajur wu jigéen nag ñoom ñooy ñan doomu ndeyam ji nag di soxna assu sow bi mu matee dem kër sëriñ omar ka nag lañ ko mook sëriñ Omar Ka nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag soxna Faati Ka sëriñ Alioune Ka sëriñ Sadex Ka sëriñ Cheikh Ka soxna Soda Ka ak soxna Xadi Ka doomu ndayam ji nag di soxna Faati Sow bi mu sëriñ Moodu Ka nag ca ndilliki nag lañ ko joxoon soxna Faati Sow nag mook sëriñ Moodu Aada Ka nag amuñu nag ak njaboot doomu ndayam ji nag di sëriñ Abdourahmane Sow ku gudd nag aw fan la samp na kër nag waaye suñ borom nag diim ko nag ak njaboot ginnaaw sëriñ Alioune Sow itam nag la fi bàyyi ko moom sëriñ Alioune Sow mii nag ñu fas yéene waxtaane tey jii nag ci 1912 nag la feeñ jamono dombeek nag waajuram nag sëriñ Mouhamadou Lamine Sow nag dem nag màkkatal mu karama nag ziyaara ji ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam ci bi muy dem màkkatal mu karama nag la tombeek nag soxnaam sii nag di soxna xadika toll nag ab diggante mu di ko xamal ne daal damaa bëgg a seeti nag ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam ginnaaw nag bu ma tàggoo nag sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim diggante bii nga toll nag saa boo ci muccee nañ ma ko fayale nag sax bab yonent bi di Seydina Aliou daal di tàggatoog nag soxna xadika dika nag dem nag màkkatal mukarama bi mu ajee nag bay ñibbisi ba tolloog nag ci réew mii nag di France ci dëkk bii nag di Marseille sedd boobu mu seddoon nag moo ko jàpp mu génn nag àdduna nag ci dëkk boobu nag di Marseille nag ci réew moomu nag di France ñu denc ko fa nag moom sëriñ Mouhamadou Lamine Sow tombeek nag doomam jii nag toll nag ci ñeenti weer sëriñ Aliou Sow nag xamul waajuram wu góor nag mu musuñoo gisante ñeenti weer itam nag lañ fekkante nag jamono kii ngi ci yoonu màkkatal mukarama kii nag mi ngi ci Mérina dal alxuraanul karima magam nag nekkoon taawu waajuram nag moo ko jël dalal ko alxuraanul karima magam jooju nag mooy sëriñ Moodu Fari Sow ginnaaw bu mu nekkee nag ci loxoy magam nag sëriñ Moodu Fari Sow ba xaajal nag kaamil bi lañ ko fa jëlee nag jox ko nijaayam nag sëriñ Cheikh Ka sëriñ Cheikh Ka nag ci mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tuubaa Seexul Xadim la Seexul Xadim itam nag moo sàkk woon itam nag mu ñëw Touba itam nag toog itam nag xaar ko fi Touba gi itam nag la génnee àdduna itam nag ci atum 1930 ci feebaru peste nag bi fi newoon cheikh kam yi nag moo ko eggaleel nag alxuraanul karimam ci loxoom itam nag la bindee nag kaamil bi ba tàmbalee jàng nag liñ tuddee nag xam-xam kër nijaayam sëriñ cheikh kam yi nag la bàyyikoo nag dem njaareem nag fekki ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim nag fas yéenee nag jaayanteeg moom ci bi mu njëkkee tàggu nijaayam nag ci atum 1926 di ko xamal ne daal sama xel nag dafa nekk nag dem njaareem seeti sëriñ tubaa seexul xadima nijaayam nag sëriñ cheikh ka fexe na daal ba at moomu nag ci atum 1926 jarbaatam bii nag di sëriñ demul nag nag sëriñ Touba Seexul Xaddiim ca déwén sa nag la ko sëriñ Alioune Sow nag tàgguwaat di ko xamal daal la la waxoon daaw nag moom daal laa bëggaat ren mooy dem njaareem nag seeti seriñ Touba Seexul Xaddiima bi ko nijaayam nag bëggee gàntalaat sëriñ Alioune Sow na daal fexe ne daal ba nijaayam nag nangu itim nag mu dem njaareem nag seeti sëriñ tuuba Seexul Xaddiima ci bi muy dem njaareem nag bàyyi koo Touba nag ci kër nijaayam nag sëriñ Cheikh Ka sëriñ Cheikh Ka itim nag ku ñuy wax nag sëriñ Jibril Ka nag la ko booleeloon mu gunge nag sëriñ Alioune Sow bi sëriñ Alioune Serigne nag eggee njaareem kër Serigne omarka nag la daloon nag ci njaareem kër Serigne omarka Ka gi itam nag la fekk nag Cheikh Moussa Ka bokkoon itam nag ci jàmbaari Serigne Touba Cheikhul Khadim itam nag nekk itam nag nijaayam ginnaaw bu mu ñëwee nag yëglu nag ci yëglu bu njëkk ba nag ngir gis Serigne Touba Cheikhul Khadim yëglu boobu itam nag gisuñu nag Serigne Touba Cheikhul Khadim te ñaareelu yëglu ba nag la ci waxtaan ak nijaayam nag Serigne Moussa Ka di ko xamal ne daal njëkkoon nañoo nag yëglu nag ci ku baax ki Serigne tubaa seexul Khadim waaye suñ boroom nag dogalul itam nag ñu gis ko ko damaa bëggoon a bind nag ab lettre nag jébbal ko ko wala jox la ko daal ngir nga joxal ma ko nag Seexul Xadiim nijaayam nag sëriñ Moussa Ka nag di ko xamal ne daal man maay bind nag lettre ba ci la sëriñ Moussa Ka nag bind sëriñ Touba Seexul Xadiim nag ab lettre di ko xamal daal tolluwaayu sëriñ Aliou Sow mi ak nag ni mu doone daal doomu sëriñ Mouhamadou Lamine Sow ni mu nekkee itam nag ab jarbaatam ak it daal lu takkoo takku nag lu Seex Moussa Ka nag def nag ca lettre ba bi ko sëriñ Aliou Sow nag jàngee la koy xamal ne daal man daal su ma ko bindaloon sama bopp lii nga ci def nag duma ko ci mën a def lettre boobu nag lañ jébbal seexul xaddiim ginnaaw bi itam nag la seexul xaddiim sàkku itam nag ci ñoom nag ñu ñëw nag gis ko bi ñu ñëwee nag ba gis sëriñ tubaa seexul xaddiim nag ba seexul xaddiim laaj ko nag fu mu nekk mu di ko xamal ne daal ci kër nijaayam nag sëriñ Cheikh Ka nag la nekk seexul xaddiim itam nag dafa mel ni itam nag laaj na ko xanaa ci kër sëriñ Moussa Ka itam nag nga nekk ba muy ñett yoon sëriñ Alioune Sow nag di ko xamal ne daal ci loxoy sëriñ Cheikh Ka nag laa nekk ci jataay booba itam nag seexul xaddiim nag liggéeyloo na ko ndax nag kër gi nag dafa tombe ngelaw li nag fuugoon seng yi nag ba daanaka daal mu am nag ay xaraafal yoo xam ne nii nag ngelaw li itam nag dana fa mën a jaar seexul xaddim itam nag bisub keroog mi ngi wax ne leeda buñ ko maasale woon itam nag dana baax sëriñ Aliou Sow itam nag loolu itam nag bokk na itam nag ca mbooloo ma nag ma ko doon maasalee ginnaaw bi itam nag la fi bàyyi koo waat nag ñu waat nag Touba fekk si waat nag nijaayam loolu nag ci atum nag la ñu teg ci nag ay weer nag seexul xaddim nag génn àdduna boo delloo nag ci marché bii ko sëriñ Cheikh ka soxna Bousso nag defal mu ngi wax nag sëriñ Aliou Xaadim Sow bi waajuróom nag di dem màkkatal mu karama ndénkaan li nga xam ne nii nag moom la fi bàyyi woon doomam ji nag di sëriñ Aliou Sow itam nag feeñ gu mu feeñ jamono nag ci dëkk bi nag di Mérina Sakho yit guñ ko yit seexul xadim nag ngir mu ñaanal ko jox guñ ko jox nijaayam nag ngir mu jàngal ko ndawuk sëriñ Aliou Sow daal wala laata sëriñ Aliou Sow nag di feeñ jamono lañu sëriñ Cheikh Kan ak soxna Bousso nag di ñu xamal ci ay way nag yum ko jagleel nag moom doomu sëriñ Mouhamadou juddoo sëriñ Aliou mel ni géej guy fuut fan ak ñaar la ci weeru koor ga la ñëw ci àdduna di màggal koor ga bisub dibéer la na jalañ fa caaxu mbiri na caaxu ñëpp sant saaxo ci weeru koor la di màggal yàlla del demaat ci weeru koor moo yell am na juróom-ñaar fukki at yu teg yaar moom la wax gaay bu leen ko xel yaar ba mu xamee ñaar fukki weer ak yaari weer waaju ko xool xam ne kii dee boroomi leer maam soxna xaddi fab ko yóbbu njaareem ma nga ba la bamba dal di ful baatin ba cheikh bamba fab ko ci loxoom lu yàgg man moo tax ma jóg di way danaa leen jiinal Cheikh Bamba naa soxna si dellul yor ko danaa ko yor fi baatin te wer ko saa yu matee dalal na ngeen ko jàngal li lee waral suñ mbër ma teel a mokkal mu xam juróomi yaari atam yu manqué ay weer yu néew soxna si dal koy sànq Cheikh moo ko dalal najaay sawru ba mee boo feel moo ma ko doon xibaar te kenn dootu ko fel moom it sëriñ Modou Faré ko jàngal mook Seexuna Aliyu maa leen làngal li lee taxoon mu far ko def xaritam di wóol na ree mbokkam moo di santam déglul ma wax la Seexuna ba mu jógee Tayba di dem Tuubaa ba mu xàggee kër na jaayam Seex ku sopp Bamba ku jeex ci Bamba ñëw fi moom yor yan ba ku ndawee lool fi saaxirin tafeesal biram ya gaay di ko yéem bul yeesal na jaayam fa la doone xaafis Tuubaa laay tara ne woon bëgg na fees kookaa di saa maam ja ne woon fa Tuubaa xaafis la woon xaalim la woon ca booba xam-xam la feese woon ku ñëw mu jàngal goreg lewet lool ku ko tooñ mu jéggal sëriñ Aliyu tekki xaddu yu yàgg di tagg Seexu Bamba kii moo yegg foofee la tërbiyaa jëmmam ci bàmba di niru sufiyanke bu teeñu yen ba boobee la dal tasawudu sixaari di xam lu jikkoy maane a sixaari sama maam la ko sëriñ bi jànge waaju ragal yàlla tamit la jàng ci 1930 ci la nijaayam nag sëriñ Cheikh Ka nag génn àdduna ak waajuram wi nag di soxna Xadi Ka bi fi nijaayam nag di waaj a bàyyi ko la yónni woon ndaw nag di ko xamal ne dafa soxla nag sëriñ Moussa Ka ndaw li nag mooy sëriñ Moor Awa Dem bi ko ko sëriñ Moor Awa jarbaat la nag sa jarbaat la te lii ma dal nag dafa mel na nag duma ci mucc dama bëggoon nag Alioune mii nag nekk nag ci say loxo ndax xur wii kat bu fi dellu waatee mën naa am nag ni ñu bëgg nag mu mel ni nag du ni mel moo taxoon nag ma bëggoon itam nag nga sàmm ko ci kàddu yooyu daal la sëriñ Cheikh Ka nag dénkoon sëriñ Moussa Ka ñu teg ay fan nag sëriñ Cheikh Ka nag génn àdduna sëriñ Moussa nag wéyal ndégalul sëriñ Cheikh Ka moomu ci sëriñ Alioune Sow mii jël ko nag yóbbu ko nag ci dëkk bii mu nekk Moussa Ka daana fa dem daana yóbbaale jara baatam bi nag di sëriñ Alioune Sow ba am bés nag sëriñ Alioune Sow nag di ko xamal ne nijaay nag damaa bëggoon a toog nag ndax nag munuma nag fooy dem nag ma dem fa te bari na itam nag ab gàllankoor nag bu mu may def fa sëriñ Moussa Ka itam nag wéyaloon na ndigalul sëriñ Alioune Sow moom bàyyi ko nag mu toog mbënd mu wéy itam nag di dem mbënd gi itam nag biñ fi nekkee am na ab xaritam bu ñu doon wax nag sëriñ Mbay Njaay nekkoon taalibeem nag Cheikh Mouhamadou Rijal Seck mas naa ànd ak moom nag ci àllu mbënd boobu sëriñ Alioune Sow am na fa nag fukki fan nag ak juróom di jaamu nag suñu borooma lu ko jiitu itam nag bi mu nekkee kër nijaayam defaatoon na itam nag lu mel noonu gasoon am pax itam nag am fa nag lu tolloog ñeen fukki fan ngir itam nag di wéetal nag suñu boroom ginnaaw bi nag la bàyyi koo mbënd ci juróomi at nag yum fa def dem nag ci dëkk bii nag di ndilliki ci magu doomu ndayam di ñuy wax nag sëriñ Moor Awa Dem ginnaaw bu mu fa nekkee nag ab diir la fa bàyyi koo waat nag dem kayal ci ku ñuy wax nag sëriñ Moustapha Sow kayal gii nag ba mu fa demee itam nag doon na fa jàng itam nag loxoy sëriñ Moustapha Sow sëriñ Moustapha Sow nag mi ko doon jàngal doon na sentir ne daal saa buy jàngal na sëriñ Aliou Sow mi lim koy sa dafay mel ne daal sëriñ Aliou Sow nag moo ko koy gën a xam ginnaaw bi nag la ko xamal ne yow dangaa ñëw nag di sàkku si xam-xam wala dangaa ñëw nag ngir itam nag bëgg la neen ay weer itam nag la fa def bàyyi ko waat fa nag ñëwaat nag ci dëkk bii nag di ndiliki ndiliki nag lañ ko sampale kër boole ko soxna suñu wax nag soxna Fatika bintu sëriñ ka mook soxna Fatika nag am nañ ak njaboota ginnaaw bi nag la bàyyi ko nag ci dëkk di liggéey dem nag ci suuf sii nag di bétoo taxawaloon fa nag daara ji ñuy wax nag muraaxan waaye daara jii nag dafa mujj gént mu bàyyi koo foofu nag ñëw nag ci suuf si nag di caaween ci kër sëriñ Moussa Ly bi mu nekkee caaween nag lay doxantu guddi ànd ak sëriñ Moussa Ly mii nag ba ñëw nag fii tolloog nag daaru sow di fii mu def na këram gi di xamal naa sëriñ Moussa Ly mii bërëb bi ma doon wër nag dafa mel na nag gis naa ko te suba ga nag la fa ñëwaat daat koy nag sanc tudde ko nag daaru salaam sow ci atum 1945 bi lay laaj nag kan moo moom suuf si ñu koy wax nag sëriñ moor Ngóone Sow dëkk nag ca Kànka bi sëriñ moor Ngóone Sow nag ñëwee seet si nag ki sanc nag foofu muy sëriñ Alioune Sow la koy xamal ne daal soo bëggee mën naa la fee jox sax nag loo bayee sëriñ Alioune Sow nag di ko xamal ne bay nag taxumaa jóg fu ma mën a samp jàkka rek bu ma ko amee nag baax na mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di Daaru Salaam Sow amoon na nag ay kóllëre nag yum daa àndal ñu mënoon cee ràññee nag sëriñ Ibrahima Faa Gàmmu sëriñ Moussa Li soxna roqeya ba sëriñ baaba njaate dem dëkkoon nag dëkk bu ñuy wax nag boofeel sëriñ suleymaan saaw dëkkoon itam nag caaween moom itam nag wóola réew sëriñ alin sow nag la woon sëriñ alin sow it nag tudde na ko doom fam daa jiite tëbaski nag ak korite waxoon na itam nag ginnaaw bu mu fi bàyyi koo na ko sëriñ alin saw nag wéyal nag di fa jiite ndigal loolu itam nag sëriñ alin sow itam nag wéyaloon na ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ci ay kóllëreem amoon na itam nag ay taalibe yoo xam ne itam nag ay góor yàlla nag lañ woon nag ci ronam ñu mën cee ràññe nag Awande Dem ak magam nag sëriñ Moussa Awande Dem sëriñ Thierno Ka sëriñ Alioune Ka sëriñ Dame Ka sëriñ Fall ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ci taalibe yi bi mu sancee nag dëkk boobu nag di Daaru Salaam Sow bënn na fa nag ab teen defaroon fa itam nag jàkk nag di jaamoo nag suñu boroom bépp yitte itam nag bu ko nit masaa fekke nag ci dëkk boobu nekk di Daaru Sow dana ko facc mu nekkit nag ku sell ku yaritim nag ak njabootam ci dëdd nag adduna lépp loo xam ne ne ay caaxaan la itam nag ñu koor nag dunduk doomu aadama yi gi itam nag mu tere leen ko lépp loo xam ne itam nag mu tere leen ko moo tax itam nag ba ci col mi itam ko daa seet dawuñu sol itam nag gépp col itam nag gu nuru nag ak tubaab lépp loo xam ne itam nag dana tax itam nag nit itam nag bu ko gisee xelam nag mën a dem itam nag ci adduna loola itam nag daana ko tere itam nag ci dëkk boobu mu sanc itam nag di daaru salaam sow bi mu matee jël soxna nag lañ ko booleeg soxna suñu wax nag soxna fatika bintu sëriñ moo rëkki ka moog soxna nañ ak ñu man cee ràññe nag turandoo maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamul daaru wi di sëriñ Ibrahima Sow sëriñ Mbàkke Sow di kim faye sëriñ Tuuba Seexul Xadiima sëriñ Muudu Sow sëriñ Ahmadu Sow di kim faye nag aw wëllëreem soxna Busa Kasaw ak sëriñ Maam Balla Sow yoraatoo na nag soxna suñu wax soxna Busa Silla mook soxna Busa Silla itam nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññe nag sëriñ Suleymaan Sow sëriñ Muhammadu Lamin Jóob Dagana Sow di kim Mouhamadoul Fadal Mbacke soxna Mbène Mbacke Falilou Sow dikim fay nag soxna Mbène Mbacke Falilou ak soxna Mominatu Mbacke Sow yoraatoon na nag soxna suñu wax soxna Boussa Amika mook soxna Boussa Amika itam nag benn bant lañu am muy sëriñ Mahmoud Fall Sow dikim fay nag sëriñ Mahmoud Fall bokkoon itam nag ci jàmbaari sëriñ Touba Seexul Xadiimi yoroon na soxna suñu wax nag soxna Faati Ba dëkkoon nag dëkk bu ñuy wax nag Boofil mook soxna Faati Ba nag am na ñu itam nag benn bant muy soxna Awa Sow yoroon na soxna suñuy wax nag soxna Tabara mook soxna Tabara itam nag benn bant lañu am muy sëriñ Jibril Jibril Sow soxna tabara mii nag mook sëriñ Jibril Sow nag doomam ci sanc boobu mu sancoon nag moom sëriñ Alioune Sow ci wetu bétoo foofu nag lañ génnee àdduna ñu raatoona nag soxna suñu wax soxna Xadi Sow mook soxna Xadi Sow itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Mariama Sow sëriñ Xaadi Sow soxna Aminata yoraatoon na itam nag yeneen soxna yoo xam ne ni itam nag amu ci nag ak njaboota soxna yii nag la dëkkoo woon nag njaboot yii nag la ci am ngir xamale leen nag njaboot yii mu am nag ci soxna yii mu dëkkoo woon nag ñoom ñooy ñaan doom ji soxna Mbeen Mbàkke Faliilu muy soxna Mbeen Sow bu mu matee dem kër alaaji Ibrahima Kan ak lañ ko jébbaloon mook sëriñ alaaji Ibrahima Kan ak am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Xaadim Ka soxna maam Binta Seyni Ka soxna Binta Dem Ka soxna maam Awa Ka ak sëriñ Abdoulaye Ka doom ji nag di soxna Aminta Sow bu mu matee dem kër sëriñ alaaji Cheikh Kan ak bu Saajo nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ alaaji Cheikh Kan ak bu Saajo nag benn bant lañ am muy soxna Faati Ka bu soxna Aminta Sow nag jógee nag ci alaaji sëriñ Cheikh Serigne Cheikh Ka moom soxna Bousso soxna Aminta Sow nag mook Serigne Cheikh Ka nag soxna Bousso nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag Serigne Modou Ka soxna Aada Ka Serigne Fallou Ka soxna Ndey Bousso Ka Seydina Ka ak Ka doom ji nag di soxna Maam Say Sow ba mu matee dem kër Serigne El Hadj Cheikh Ka nag bu ndilliki lañ ko jébbaloon mook Serigne El Hadj Cheikh Ka nag bu ndilliki nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag Serigne Murtada Ka Serigne Maam Mor Ka soxna Aada Ka Serigne Assane Ka soxna Maam Fatiloo Ka ak Serigne Fallou Ka njaboot gi ñu leen tuddal nag ñooy amee lenn tim nag ci sëti sëriñ Alioune Sow yi moom sëriñ Alioune Sow nag gis na nag ñetti yoon nag ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiima soo delloo nag ci am mbindam mi ngi wax ne nag bi muy njëkk gis nag ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiim booba nag waajuram wu jigéen nag la fa àndaloon booba itam nag dañ koo feral nag ba noppi ginnaaw bu mu àndeeg waajuram nag njaareem keroog nag la ko sëriñ bi nag njëkk a jëlitim nag teg ko nag ci kawam boole koog nag doomu sëriñ Ibrahima Mbàkke nag Mbàkke Kajoor ñoom ñaar nag la sëriñ Touba nag boole teg leen nag ci kawam li leen wax nag ñu tàllal nag seen loxo mu ñaan lu yàgg nag tufli doomu sëriñ ibrahima mbàkke mbàkke kajoor boobu sëriñ Alioune Sow nag indiwul nag aw turam boo delloo itam nag ci am mbindam ba tey mu ne delluwaat na nag ci ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddiim muy ñaareelu yoonam booba itam nag waajuram wu jigéen itam nag la fa àndal ak ñaari magam muy soxna asu soow ak soxna faati sow biñ eggee nag ba gisee ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddiim waajuram nag soxna xadika moo xamal nag seexul xaddiim na ko nag sama doom la dénkoon nag keroog nag bi muy da koo fobaat wuufaat ko ñaanaat nag lu yàgg-yàgg nag ne ko tuflil bi nag mooy bi mu jëlalee boppam boobu nag mi ngi kër nijaayam di xamal nijaayam nag damaa bëgg a seeti ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim booba itam nag nijaayam sëriñ musaa ka itam nag la fekk njaaree mu ànd ak moom nag ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim booba itam nag ci la jébbulu nag ci ku baax ki sëriñ tubaa ci la ko seexul xaddim nag liggéeyloo ci fuug boobu nag mu doon fuug seng wi boobu itam nag la mujjee gis nag ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim bind na nag ay xasida yi xasida nag jagleel ko Seexul Xaddiima soo delloo nag ci xasida yim bind nag di ci sant nag ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiima am na nag xasida nag gum bind nag tudde ko xasida yébbalu soo delloo nag ci xasida googu mu bind nag jagleel ko ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim te tudde ko nag xasida yébbalu ma ngay wax nag ci xasida ga nag man jébbalu naa yaakaaruma nag kudul yow sa ngërëm dong itam nag laay sàkku su fekkoon ne nag damay woor nag muy koor gi suñ boroom nag digle nga ne kon ne itam nag damay julli nga ne ma daggal julli gi ma sëlmal itam nag ci saase su ma doon natt itam nag asaka nga ne ma bako ma bàyyi ko itam nag ci saase su ma doon aji màkka itam nag ba tegu itam nag ci yoon wi nga ne ma dëppal itam nag ma dëpp itam nag ci saase su ma doon jihaat itam nga ne ma baal jihaat ji itam nag ma teg ko itam nag ci suufa maa ngi lay xamal ne daal saa boo ma digalee danaa sax itam nag ci lëng ma digal saa boo ma liggéey itam nag lëng ma liggéey itam nag danaa ko def muy fàttaliwaat seexul xaddim daal di ko xamal ne daal yaay sama sang maa ngi nii nag jéb jébbalu naa na teewlu nag xasida ak jébbalu nag gim defoon nag ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiima yaa sayidi inni lakastaslamtu baxdahu ridaaka anni rumtu law sumtu summa qulta laa aftartu aw sallaytu summa qulta laa qatahtu aw sakaytu summa qulta laa rajattu aw hajattu summa qulta laa rajahtu summa qulta amartanim tasal wa hay sumas taxdamtani xadamtu yaa sayidi inni laka staslamtu sëriñ Alioune Sow nag defaat na yeneen way itam jagleel ko nag ki mu yaakaar sëriñ Touba Seexul Xadiima soo delloo nag ci way yooyu mu def nag defal ko ki mu yaakaar sëriñ Touba Seexul Xadiima tagg sëriñ Touba nag mooy sama drapo ci la ma suñ boroom itam nag musale itam nag ci gàcca sopp nag sama soppe bii nag di sëriñ Touba Seexul Xadiima day tax a jiitu nag sa maasa maa ngi xam ne la itam nag ne képp ku ma jorte la laneen nag ku du taggkatu sëriñ itam nag sama diine mooy sopp nag ki nga xam ne nii suñ borom itam nag boole na ma nag ci barkeem mu tàggale maag nag luy raflee ñu teewlu itam nag way yi sëriñ Alioune Sow defaat nag ci sëriñ Touba Seexul Xadiima madahu qadimi Mustafa shi'ari yahsimuni law bi min aari hubbu habibi ahmad al qadimi yajudu e lil muhibbi bi taqdimi man sannani xayra qadimi al jaad li rabbina al baaqi fasuxtiraari madihu adhu bi ixwaani lahu nasihatan bila udwani na seeti itam nag ngay ba mu fa eggee itam nag defoon na fa nag ay bëyit jagleel ko nag maam Balla Aysa Mbàkke nag maam Balla Aysa Mbàkke ziyaare yow suñu maam Balla nag yàlla bi na nga faj nag suñuy aajoo ñi ngi ñaan itam nag suñ boroom itam nag gërëm bépp soppe itam nag bu ànd ak ñun itam nag ci ziyaare bi te mu dàqal ñu nag lépp itam nag lu aju itam nag ci wàllu caaxaan yàlla nañu ko suñ boroom defal itam na itam ne ku sayit nga ñi ngi seede na itam ku sel sell nga itam nag ci suñu boroom lii ma wax itam nag jëmale ko nag ci yow liy tegtal bi mooy sa sët bii nag di xaadimu rasulullahi yow mi am nag sët bu mel noonu nag sayit nga kooku itam nag muy dëkkaaleeg nag suñu boroom bi kon nag ñu ngi lay ziyaare nag yow suñu maam Balla Aysa Mbàkke di soppeem nag suñu boroom bi ñu teelu nag way yi sëriñ Alioune Sow nag defoon ci ginnaaw bu mu demee ngay nag ziyaare ji maam Balla Aysa Mbàkke ornaaka jaddna habiballahi faltaqiha jana bi falillahi falyat lahan kulli fatan awaahi min naaween fi anhu kullallahi anta shahidun faaqa hindallahi sibtuka xaadim wa huwa fi daarini jaarullahi surlaaka jabbana habiballahi nijaayam cheikh moussa kay nag def na ci moom itam nag ay way jagleel ko ko nag moom sëriñ Alioune Sow di ko xamal ne daal yow sëriñ Alioune Sow kawe nga nag bépp sang yow nag amul kenn nag ku lay bañ xanaa kudul nag ku iñaan yàlla na yàlla nag guddal saw fan ak ñun nag ñi la koy ñaanal ci dara jëy sëriñ Touba Seexul Xaddim nag moom mi nga xam ne lii moom la suñ boroom nag jagleel nag liggéeyal yonent bi ñi ngi ñaan nag ci dara suñ boroom nag mu màgg mi yàlla na la musal nag ci pexem saytaane nga nag mu jaddid nag ci yoonu murit ñu teelu nag way yi cheikh defal nag jarbaatam bii nag sëriñ Aliou Sow alawta yaa aliyu kulla zoni falaa jaarika siwaa zoni ataalahum rakama aliyu fóodihum rama bi qudbil mahmudi man qassama bi xidmatil wahidi wa qassana bil mati wa tawhid nasaluhu bi kaamil wujudi li saahibil qadimil wujudi subhanahu wa hisnan anil maridi mujaddidan tariqatal muridi shukran wala asimu liman wadud yaxsimuna fil qabri ak lududi mu nekki nag ku jaxasoo njabootu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim mook Seex Moodu Mustafaa Mbàkke nag nag amoon nañ nag ak jaxasoo nag gu yaatoo yaatu noonu itam nag ni la ko amee woon ak cheikh mamadul faadal mbàkke ba am na bis nag mu ziyaare ji woon nag cheikh mamadul mu ziyaaree ba noppi faadal mbàkke nag di wax ne kii fi ñëwoon doon ziyaare nag est-ce que xam ngeen ko nekkoon ca mbooloo ma nag di ko wax ne daal sëñ bi nag kii miinuñu ko mu leen di xamal ne nag ku mat a xam la ku a xam la nag ba muy ñetti yoon moom sëriñ Alioune Sow nag cheikh mamadul faadal mbàkke nag doon na ko liggéeyloo am mbojj te dëkk bala nag di Touba Bogo jaag ba mu ko doon bojjuloo nag mooy jaagub nag ndindi ñas soo delloo nag ci lettre bi ko cheikh mamadul faadal mbàkke bindoon moom sëriñ Alioune Sow ginnaaw bu cheikh mamadul faadal mbàkke nuyoo nag ba noppi di nuyuwaale nag waa xur wi mi ngi xamal nag sëriñ Alioune Sow ginnaaw buñ jullee tabaski nag ba noppi na nga dem nag Touba Bogo te jaagum ndindi ñas ba nag moo nekk nag seenu sas ñu teewlu nag lettre liggéeylu nag bi ko cheikh mamadul faadal mbàkke nag doon liggéeyloo nag moom sëriñ alin Sow ab mbojj nag la woon ci dëkk boobu nag di Touba Bogo ñu teewlu lettre bi asalaamaaleykum wa rahmatullah yow sëriñ Aliou Sow ak waa xur wi maa leen di nuyu lu bari lool te di leen sant bu baax te di leen xamal ne jaagub ndindi ñas mooy seenu sas ci mboj mi fukki fan ak juróom ci tabaski wi mooy bis ba fa ba ko incha allahu maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam alhaaji Mouhamadou Fadel Mbacke allahuma salli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa xadimi ay lettre yi lettre la ko Cheikh Mamadou Fadel Mbacke bind moom it nag sëriñ Aliou Sow ku soppoon Cheikh Mamadou Fadel Mbacke la tudde na Cheikh Mamadou na itam nag ko mu jagleel nag cheikh mamadul faadal mbàkke di ko ci tagg ci doomu bamba nag bi mu doon xalifa général des mourides itam nag bu mu doon bëgg itam nag gum ko bëgg yaakaar itam nag gum nekk yaakaaru muridi sëriñ Aliou Sow kulëre googu mu séqoon nag cheikh mamadul faadal mbàkke diggante sëriñ nag ak taalibe tax na nag mu def ci moom nag ak xasida ñu teewlu ko yaa mu timman binaa a masjidi nuuri fa jasaakal ilaahu xayra xuyoori fii naimin abqaaka bahran tawilan wa sururin wa ismatin wa buruuri yi masaaratihi nasuruka hiinan baxda hiinin xat kuntaas kaama zoori laa na xuulan xatamma masjidu tuuba numsikul maala maxlu soomi duyoori fala in tamma jaamihu cheikhiha saa fala xad sirta jaamihan lil xuyoori fal narum minka kulla xeyrin wa nafin bil hadaya wa sawra min xeyri suuri baraka allahu fiika sirran wa jahran yaa mu timman bina a masjidi noori mook sëriñ tuuba cheikh soy bu mbàkke moom dañoo bokkoon aw doxaliin ba tax na nag ak kolëre gu yaatoo yaatoo yaatu itam nag doxoon na nag seen diggante ko ca Gédé ginnaaw bu mu nuyoon sëriñ Mbàkke Buso nag ba noppi la ko sëriñ Mbàkke Buso nag doon laaj itam nag nu mu def ak nag alxuraan mu di ko xamal ne nag xam naa ko nag te miin naa ko ginnaaw ba mu fa jàngee nag ba noppi sëriñ Mbàkke Buso itam nag yéemoon na ko nag ci déggam nag alxuraanul karimam mu nekkit ku jaxasoog Cheikh Murtada Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul liki nag la njëkk a gisee booba itam nag aw xew nag amoon fa Cheikh Murtada Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag ñëwoon fa ginnaaw bu mu egsee nag ba nuyoon teeg sëriñ Aliou Sow nag ba Alioune Sow doon laajit nag fan la sëriñ Alioune Sow dëkkee ginnaaw buñ ko ko waxee nag la wax ne dana fa jaar bisub kaw itam nag gane na sëriñ Alioune Sow ñëwaat na fa nag ay yooni yooni yoon nag di gane si itam nag sëriñ Alioune Sow ci ñëw yooyu mu fa doon ñëw nag am na yoon nag bu mu fa ñëwee woon tombeeg nag sëriñ Alioune Sow nag fatu mu toog fa nag ab diir toog nag askan wa bi sëriñ Alioune Sow ubbee nag bañ wax ko ko la wax ne de Cheikh Mourtada big rek ñoo nekkoon xamaloon na man nag dinaa fi ñëw waaye su ma fi ñëwee itam nag duñu gisee loolu rek moom moo waral nag gisee nag faati xari mbàkke la sëriñ muudu faati xari mbàkke nag daana ñëw nag daaru salaam sow di seet si nag sëriñ alin sow ngir nag ak kóllëre nag gu yaatu nag gu ñu amoon noonu tim nag ni la jaxasoo woon ak sëriñ mahmoud fall bokkoon nag ci jàmbaari cheikhul xadim yi tudde na sëriñ mahmoud fall doom sëriñ mahmoud fall itim nag tudde na ko doom ci gàttal daal sëriñ alin sow képp daal ku mu fekkanteel jamono saa boo ko masaa gis nag wala sab xol da nga ko jëmale nag ci moom soo delloo nag ci way yii ko sëriñ Cheikh Ka nag bu so defal lu baree baree baree baree bari nag ci relation nag yu mu amoon nag ak mag ñi ak yitte nag jum leen joxoon ngir sëriñ Touba Seexul Xadim ma ngi ko cay nettali mu nekk nag ku jaxasoog sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké itam nag doon na sàkku itam nag ci sëriñ Alioune Sow mu ñëw nekk itam nag ci wetam bokkit nag ci ñi nga xam ne nii nag dañuy ànd ak moom nag liggéeyal ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim doon nit ki lu mu bëgg lu ne nag mu am ko li ma bëgg ci yow daal su ma ko amoon ci sama biir kër gii nag ngay dëkk suñu néeg yi itam nag day jàkkaarloo ba saa bu ma xëyee nag gis la nag nga gis ma bari na itam nag lu sëriñ tubaa seex abdou lahad mbàkke nag daa deflu daana ci jiital itam nag sëriñ Alioune Sow bi sëriñ tubaa seex abdou lahad mbàkke nag sancee tubaa belal ba sëriñ Alioune Sow nag demoon fa nag doon ko ziyaare ji doon seeti itam nag sanc ba sëriñ tubaa seex abdou lahad mbàkke itam nag téye na ko fa ay fani fan sëriñ Alioune Njaay Mbeen nag Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké itam nag di inaugurer marché Ocass ci teewaayu nag Léopold Sédar Senghor bindoon na lettre nag Serigne Aline Sow lettre bi nag Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi ngi ko daté ci bisu 23 mars ci atum 1977 ñu teewlu nag lettre bu invitation nag bi Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad defoon yónnee ko na Serigne Aline Sow mu teew nag ci inauguration marché Ocass bi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu yow Serigne Aliou Sow maa ngi lay nuyu lu bëri di la sant di la ginnaaw Touba Mbacke bu mag bi ñuy wooye marché Ocass bu yees bi nu doon liggéeylu liggéey bi dafa yegg te kilifa réew mi war ko ubbi si ànd ak mbooleem waa nguur gi gis ni àllarba di nitti fan ak ñett ci weeru tubaab wi nu nekk maris may woo képp ku yaakaar borom Touba koo xam ne sama mbég sa mbéga mbégum waa Touba sa mbéga defaraat Touba sa mbéga ngir nga teewe si ubbite gi ak koo ànd ak yow ngir Sëriñ Touba muy taalibe di mbokk di xarit baxuma kenn wasalaam a Cheikh Abdoul Ahad boobu mu séqoon ak sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad tax na itam nag bi sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke nag di defar daaray kaamil bëggoon na koo def nag jëwriñ ji ginnaaw nag bu bëgg-bëggub sëriñ Touba Cheikh Abdou boobu nag jàppandiwul doon na xamal nag sëriñ Alioune Sow bu ma sañoon daal ay bis yu ne da nga ñëw nag Touba nag xool si liggéey bi nag ba xam nag fu mu toll lépp loo ci gis nag loo xam ne ni itam nag neexu la wax ma ko nag ñu waxtaane ko bindaatoon na lettre nag sëriñ Alioune Sow di ko woo nag Touba képp koo xam ne ni daal kilifa nga nag bi dama laa soxla nag ci Touba ñu teewlu nga xam ne nii daal sëriñ Alioune Sow nag jotoon na ko ngir sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad nag di ko xamal ne mbooleem kilifa yi nag laa soxla nag ci dëkk bu sell bii asalaamaaleykum wa rahmatullahi maa ngi lay nuyu bu baax te di la yëgal ne itte woo naa yow kilifa yi yoon wi ci Touba bisub ajjuma fukki fan ci weeru ndey koor wi yow nag sax teew yitteel na ma lool wasalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Abdoul Ahad al xalifatul ham tariqatil muridiyya am na ay way tagg nag yum jëmale woon ci borom daarul moxti sëriñ Alioune Sow nag mi ngi ubbee xasida gi ci ñaanal nag borom daaru moxti di ko xamal ne daal yow borom daaru muxti yàlla na la suñ borom jox nag lépp nag lu kawe nag la nga doon mébéta maa ngi lay ñaan nag saa boo gisee sama mbind mii nanga sant nag cant nag gu kawe goo xam ni nag dana mën far nag mboolem nag bakkaar nag yu ma amee maa ngi ñaan nag suñ borom itam nag tàllal saw fan ba mu dem nag ci kanama a kanam a kanam yow borom daaru muxti ñu teelu nag way yi mu defoon itam nag ci maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru axtaaka ya baaniya daaral muxti fawqal muna rabbil anaamil قائم بالقسط لك الغطايا الدهر أكفى بستي رضا مسيب مرسد لا يخطي عنك وعن آلك دون سخطي اذكر إشارة تعاشى خطي شكرا لما أسنبته ساهدت هدا بك الإله كل سبت هداية تكف موت الغد يا سالم الشهر أمير الإبت زادك ربي bil xayra doona damudda ilahul alamin al muhti umrak ya bani daaral muhti moom sëriñ Alioune Sow itam na leetarub laaj nag bu mu am nag lu mu doon laaj nag maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru bu mu ko laajee nag ba noppi maam Ceerno Ibrahima Faati itam nag tontuwaatoon na nag sëriñ Alioune Sow ci ab lettre ñu teewlu nag lettrub tontu nag bi maam Ceerno nag tontu nag sëriñ Alioune Sow ci ay laaj nag yu mu ko doon laaja bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina wa lana muhammadin alihi wa sahbihi wa sallam wa baraka salaatan wa salaamun wa barakatan يعلم بهذا هذا السائل بأن المحمود شرخا ليس بعادة بل عبادة والعبادة مأمور بها لا منهي عنها وأما بقية الأسئلة فجوابها بديهة إن المريدين صارخة يكون كالميت بين يدي الخاذل فإن كان هذا وكان شيخه كاملا في الظاهر والباطن فلا بد له من الكمال كما يشهد لذلك أن هذا المجيب كان ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك إن شاء من حتى زار اليوم خديمه عليه بآله وسلم alayhi salaatu wasalaam aleykum nañ nag ak kóllëre sëriñ Aliou Sow nag ab taawam maam Thierno nag la ko maam Cheikh Anta nag jógee Ségou ba mu ñëw nag seet si ko nag Daaru Salaam defoon na ay way nag ci maam Cheikh Anta soo delloon nag ci way yi sëriñ Aliou Sow nag defoon nag ci maam Cheikh Anta Mbacke xam ne nag mbooleem waykat yi mi ngi laaj nag ba xam dana am benn waykat nag bu mën a fentati ay way nag jëmale ko ci maam Cheikh Anta nag ba mu loolu nag moom kenn mënatu jur ko keroog nag bi maam Cheikh Anta nag jógee Ségou jamono nag teeyaat na teey goo xam ne nii kenn waralu ko nag lu dul ñibbi sig nag maam Cheikh Anta Mbàkke gi maam Cheikh Anta nag mi ngi mel ni aw niir ci ak tabe ak yiw goo xam ne nii nag da koy laabire nag doomu aadama yi ku ñeme la itim ku mën a muñ la ku baax la te it nag ku tabe la maam Cheikh Anta itim nag ku teel a topp sëriñ bi la booba itim nag tutànk la te loolu nag ku ne xam na ne mooy màndargang texee ci jamono ji nag ñu toll xasida gii mu sant maam Cheikh Anta nag xasida la nag gu gudd ci biir xasida gi dégteel leen nag wayu sëriñ Alioune Sow nag wayoon maam Cheikh Anta Mbacke ci ginnaaw bu mu jógee ségu nag mu ñëw ziyaare si ko nag ñu teewlu ko yaa mahsara suxaraai xal min mufliqi aw mubdihin li sinin musawwabi mantiqi yusni li wajhillahi mahmadatan xala man hanhu yaqsur matahu kulli muwaffaqi wa huwa alladi taabat biti bi qudoomihi daara salaami li maxribin wa li mashriqi wa araahu misbaaha salaami bi wajhihi wa araahu maxnaatiisa qalbin mushfiqi qul kayfa laa wahumu nasiirahu raw lam yaraw fil barri mahjoodin wa fallin mutlaqi kal musni fi joodin wa xulwin naasihu cheyqun sujaahun saabirun barrun taqi ka chamsi fi noorin wa xulwi maqaamihi wajhun ka yaaqootin wa min danasin naqi qad habba sayidana qadima almustafa waqta shabaa'i wa tilka chiimatu muhtaqi demoon na itam ziyaara ji soxna jaaratullaahi nag ca defoon nag ci soxna jaara mi ngi ko tàmbalee nag ci ñaanal nag doomam ji tagg nag sëriñ tuubaa seexul xadiima ginnaaw bu mu taggee seexul xadiim nag ba noppi la wax ne nag barabu soxna jaara bi nag dem na fa ziyaare ko loolee nag ci la def nag ay way di tagg nag soxna jaara di ko seedeel itim di wax itim nag lenn itim nag ci ay jikkoom boole googu itim nag di ko ñaanal itim nag foofu mu tëdd di ñaanalaale itim nag mbooleem jullit yi rawatina nag muritu seexul xadiim yi ay way sant daal ak ñaan ak bërëb nag mu ziyaare ci la jukkil nag li mu waye nag soxna jaara ñu teewlu ko sabbihu rabbana fa ahsanu shaani xad badaali subhaana muxtil masaani أعجبتني هناك في فرحان روضة قد رأيتها في الجنان روضة قد رأيتها وسط طوبى إن طوبى جنان هذه الجنان صاحبي لا يعجبك هذا فهذا واجب عند ربنا المستعان إن طوبى لابن ساكنة الروضة يا هبس ابنها خير ñi bëggoon maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina la tuddee na maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina doom bëgg woog mu bëggoon Cheikh Ibrahima Fall itim sàmm na ko itim nag ci njabootu Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina rawatina nag doomu maam Cheikh Ibrahima Fall bi ñu tuddee nag sëriñ Abdou Sakkoor Fall daanañ dajee nag ci liggéeyu ji boo ñëwee Salaam Sow da nga fekk nag ab baboor gën koo miin nag ci seggukaayu café sëriñ Abdou Sakkoor Fall ibnu maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul nag moo ko joxoon nag sëriñ Aliou Sow nag ngir mu barkeeloo ko def na na itim nag ay way ci maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridina way yi nag mi ngi ko jëmale ci nag di tagg nag taalibeb Cheikhul Xadim bi ci ay jikko nag yu mu yore ak it nag di seede itim nag ci taalibeb Cheikhul Xadim boobu ci farloom nag gu mu amoon nag ci yoon wi jikko yu baree baree baree bari daal yu Cheikh faal yore woon itim nag mi ngi koy tudd boole koog nag di ko ñaanal ndax kat taxawaayu Cheikh Ibrahima faal nag yombul woon itim nag ci yoon wi lu baree baree baree bari daal ci tagg ak seede ak ñaan daal la def nag ci way yi mu defal Cheikh Ibrahima Fall nag ñu teewlu ko sheyda ibrahima almurida alshadiqa bi haasi alqasida salaamu rabbi bi tabshirin wa ridwani ala almushaddiqi ibrahima mihwani yasuruhu alyawma qalbi mahqilami yasa hubbin wa madhin bi israarin wa ihlaani ya sayyidi ya raisa alahdaqina mahan ya haawiyan min ilahi khayra ridwani nawarta afaqa rabbul arshi duna ridan anta siraaju li si sidqin wa ihsaani malakta min jaari rabbil harsi fi abadin qasaa'ina alfadli yaa man zutta ahsaani ahsanta afdala ihsaanin yuxajjilu ihsaan albayaadina turan suma suudaani def na itim nag ay way jagleel ko nag mbooleem njabootu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim way yi nag mi ngi ciy tudd képp koo xam ne ni daal Seexul Xaddiim nag meññ na la wala daal ñu takkoo takkoo takku nag ci ñi nga xam ne ni daal Seexul Xaddiim nag meññ na leen xasida gi nag mi ko tàmm tàmbalee di sant nag seen waajur woowu nag di sëriñ Touba Seexul Xadim naa bu mu noppee nag la jël nag doom yi di leen santa ak ñaanal di le daal ci biir wayi ne ñii nag ñooy ay yi sëriñam ñu teelu nag way yim def nag ci njabootuk sëriñ Touba Seexul Xadim gi binajlihil Mustafa habli tadaaru kama qad faatani min quyoorin waqdi awtaari bi faadilin fadilani ya karima ala xarni wa kun li wa tahhirni min axyaari wa bil amini aminni min adan wajawan wa durri famin wa barril ayni النار وبالبشير بشرني باللقاء بلا موت وهجهتي عن كل أقدار بعابد الله نجل الشيخ واسدتي هب لي بفضلك إقلاعا من أسراري بعابد الأهد الباقي قني وجلا والطرد عنه وألحقني بالخيار بعابد الخادر اجعلني كبدر يد وسط النجوم إلهي وسط الخيار بساله وشعيب طولا عمري واجعل رضاك ورزقا واسعا جاري bi xurmatil murtada xabdil muhaymini suq ilayya xayraati abraarin wa fujjaari wa awlimil birra wa taqwa bila hasadin wa ilma xaybin bi ibrahima ya daari bi bintihi ummi kulsumin wa fatimatin wa maryamin waqdiyan ya bar wa awtaari bi bintihi maryamin aisatin li hab nooran uniiru bihi jaari wa zuwaari qini bi muminatin wa maryamin wa xadijatin wa muslimatin akdaari aqdaari bi xaqi aminatin aydan wa muhsinatin maymunatin li hab uluma al ahbaari baada shayxi maali baxda waalidikum siwaakumu faltajuudu lii bi awtaari inni ku yéeme la woon daal moom sëriñ Alioune Sow li mu bind nag kenn munu ko wax nag ci aw waxtaan ci bépp xeetu façon bind itam nag bind na ci képp kuy mag itam nag te te teeg sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag wala ngay doomi bi nag bind na nag ci yow mu nekk nag ku jaxasoo woon sëriñ Mouhamadou Lamine Diop nag Dagana sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nag bindoon na leer lettre sëriñ Aliou Sow ci ginnaaw nag bu ko sëriñ Aliou Sow nag bindoon nag lettre nag ba noppi doon ko àbb nag lenn nag ci ay téere bi ko sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nag di tontu maa ngi lay delloo nag delloo nuyoo ak nag bopp tontu ci dayoo boo xam ne nii nag dayoo la nag bu kawee boo xam ne nii itam nag ab xamle itam nag moo koy jiitu xamle bi nag mooy maa ngi sant yàlla nag ci yéen sant nag bu amul àpp boo xam ne nii itam nag ab jeexantal la itam nag bi nga ma joxoon nag dégg naa la nga ca wax gërëm naa itam nag lépp ko yëg naa itam nag cër nag bi nga ma sédd nag ci sa bopp téere yi nga bëgg nag ma abal la ko nag mi ngi nii mën nga koo téye nag mën nga koo téye nag ci lu dul benn càkkutéef nag bu may def ci yow nag ngir jot ci ba saabu la soobee ñu teewlu nag lettre bi sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nag bindoon sëriñ Alioune Sow ci ginnaaw nag bu ko sëriñ Alioune Sow nag bindoon lettre doon ko sàkku nag ngir mu abal ko nag ay téere xam-xam joxaale ko nag ak xasida nag addiya ngir nag mu tawatal ko nag ay tawat nag ku baax ki sëriñ Touba Seexul والسلام على رسول الله أما بعد فعسى رد سلام وجواب ما هو اللائق بجنابكم الرفيع يشيعها إهلامكم بأني حمدت الله عليكم حمدا كثيرا أزيرا وقد سمعت ما قلت في البراوة ورديت عنك بكل ما فيها وخصوصا فيك جعلتني من خاصتك عما طلبت من الكتب فخص كلهم بلا أجل إلا تمام خرضك إلا أن كتاب التجويد أكثر ما أحتاج إليه لما علمت إني في بداية تعلمه فكن مخدما في الكتابة وعندما تم فليرجع أما الشيخ فتب نفسا فيما أشره له من حالك فسوف وبينها من الخاشية التي بيننا إن شاء الله وتكون القصيدة إن شاء الله شاهدتي فجزاك الله خيرا والله لا أقدر على مكافتك والسلام عليكم ورحمة jaxasoo bu yaatoo yaatoo yaat daal la amoon ak sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana siqoon nañu itam nag ay téere yuñ daa abalante ba ci lettre boobu itam nag firnde la ci tudde na sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nag doom ngir nag ak jaxasoo nag gu yaatu nag guñ amoon xeetu xam-xam itam nag dund na ci moo xam na ci téere fiq yi ak yeneen xeetu téere téere yi gi ñuy gàmmoo muy barsan bind na ci itim nag ay xasiday xasida di wax ne itim nag bëgg-bëggub ku baax ki sëriñ tubaa nag la ciy dabu téere barsan yooyu ñuy gàmmoo sax nag ak njabootam bari na ci itim nag bu gàmm jotee yooyu itim nag ci la ñuy barkeelu moom sëriñ Alioune Sow nag bi mu bindee téere boobu nag ba noppi mu ne nag mi ngi koy bindal nag yonent bi di ko ci tagg waaye nag di ko santaale nag bu baax a baax sëriñ tubaa seexul xadima ndax yonent bi nag mooy sëriñub sëriñam moo tax itim nag mu woy ko ngir nag di ci dabu nag ngërëmul sëriñam muy seexul xadima doxantu ba daaru salaam sow ngir gis nag mbindum sëriñ Alioune Sow daa yéemu nag ci doomu sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Sow bi guddik ajjuma googu nag ak guddik altine googu nag ñuy dundal ci daaru salaam sow sabab bi nag mooy sëriñ Alioune Sow nag di mu nekkee nag ci loxoy nijaayam nag sëriñ Cheikh Ka nag ci Touba la daa def nag guddi gu jot ci ñaari guddi yooyu mu dem nag ci barabu ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim fanaani faa yëkkati nag ay xasida nag ba asamaan set loolu nag wéyal ko nag ci diirum nag lim koy man bi mu demee nag ba xaw cee néew doole nag ndax nag ay at la ko bàyyee nag ay doomam ak nag taalibeem nag yi koy yaakaaroon ñoom itam nag ñu koy defal nag loolu ginnaaw bi itam nag sët yi itam nag ñi ngi koy amal loolu itam nag tax na itam nag guddik ajjuma gu jot ak guddik altine gu jot itam ñu koy wéyal nag ci daaru sow bi sëriñ ibrahima sow nag di jiblu nag ci ku baax ki sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke biñ ko xamalee nag ne sëriñ ibrahima sow mii nag doomu sëriñ alin sow la mi ngi doon xamal nag sëriñ ibrahima di ko wax ne daal sa waajuroo nag xamoon naa ko bi muy nekk nag ci kër sëriñ seex jot nag ak guddik altine gu jot mu ñëw nag ci barabu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim nag di fi yëkkati ay xasida maag sëriñ tubaa seex abdul ahad itam nag daanañ def saa bu koy jàng nag ñu ñëw fa nag di ko seetaan di déglu si waale nag njàng mu neex nag mam daa def loolu itam nag day wane na itam nag lii itam nag cosaan la ci daaru sow boo delloo nag ci xasida gii ko sëriñ seex ka nag defal tuddee ko nag xasida ñaan fukki weer ak ñaari la jàpp weer wu ne mu ñaan ca ca barke wa suñ boroom nag defal leen xéewal ci darajay nag kim leen booleel nag di sëriñ Aliou teewlu nag xasida gii nag sëriñ Cheikh Ka nag defal sëriñ Alioune Sow di ko ca nag ko nag nag ci Daaru Salaam Sow lil ma sat wax leneen ndax yàlla jógu may wene yaay ahmadal amin moo wàcc mboolem ma danaa fi tuurooti di jooy di wax ba saa gër yi di xooy di dox ci àll bi ba yaa ma ne tàbbal nu tibbal nu nat di lóbbu wóor yi sa fi jóor sëriñ Aliou yaa di góor sarax nu sa yér mën tibbal nu jox nu ban doyal nga yer nu ban diis dun tayal moo tax ma jóg di la wayal defal nu fi sa yér mëne yaa say xunaa lay dagaan ndaxte nga duy sunuy bagaan te may géwél bi werekaan ubbil ko gaali yërmande yaa say xunaa nag nu gërëm xéewal gu soppe kuy dërëm pour yàlla waaye nag nu yërëm yaa say di sa yërmande danaa la jooru di la way di ñaan ci yàlla gën a way ba ami tànki dox di wéy di waaju ànd ak yërmande noonu lay dagaan ci tam xarit ba sunu róo gi ne xuret nga dal liggéey sunu bërëb dugal nu gaalu yërmande ci diggi gàmm laa la ñaan saa xel mu mel ni ak sa yaar di balla ndox mu neex ñu naan bay sa yërmande ci weeru gàmm la woo diraam du jooy di la nuyu say mbir la nuy sukkandikoo rakki gan laa taxaw ne waa ju jóg di bay baxaw xambaax mi naan mi ngi nan ci xaw tibbal nu jox nu yërmande rakkaati gàmm nu ñëwaat dellooti bu jóg taxawaat buñ sippi nan saf te safaat sali nu bi sa yërmande noonu lay dagaan ci maamu koor xéewal gu wal bandi fi buur buñ xaari kenn buñ si boor di wër di sàkku yërmande ci ndeyi koor laa lay dagaan yakkal nu fii ci say bagaan beral ci seex mi wérakaan xaydara sow sa yërmande ci aw baraxlu laa la ñaan yàlla musal nu ci kayaan teqal nu képp kuy rañaan mu daanu fi ci alquran man dafi géej barab sa yaan muy saf di si piir ma ciw kori maa jóg di xalam di wax ba saa xel ñu gëlëm waykat bi réer na di gëlëm ku fi a na tabaski moom nan naan ci yàlla xam bi yaay xaadima rasul ndippal lu ànd ak yërmande dinañ bi geesunu bu baax doo fàtte doo tag nga dajaax lu ñi nga boo duñ ñaax duñ fàtte way sayam mu amit nag ay turandoo yu takkoot takkoo takku yu wuute nag tur nag yu ñu leen di woowe am na nag ay turandoo nag yu ñu wooye Alioune am na nag ay turandoo nag yu ñu wooye Aydara am na nag ay turandoo nag yu ñu wooye Seydina am na itam nag ay turandoo nag yu ñu wooye Mulaay moom doomu sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Sow bi nag mi ngi génn àdduna ci feebar bu gàtt nag bu ko tëral ci dëkk bii mu tëkkoon nag sancoon ko tuddewoon ko Daaru Salaam Sow ñu gën koo xam nag ci Daaru Sow nekkit nag ci wetu dëkk bu selli bii nag di Touba ci tàkkusaanu alxemis fukki fan ak juróom benn nag ci weeru ci atum 1402 nag nag ci gàddaay gi alxamis fukki fan ak juróom benn nag ci weeru koor ci atum 1402 nag ci gàddaay gi dëppoom nag muy jeudi 8 ci atum 1982 jeudi 8 juillet 1982 ci teewaayu nag doomam nag sëriñ Ibrahima Sow sëriñ Ibrahima Sow moom itim nag moo yónni ndaw ci taawub nag Cheikh Moussa Ka di sëriñ Modou Kabir Ka sëriñ Modou Kabir Ka itim nag moo ko yëgal nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di sàkku itim nag ca ndaw la ñu fob nag sëriñ Alioune Sow réew mi indil ko ko nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba bi mu ñëwee nag lañ ko fanaanal nag Touba bi ñu xëyee nag ci yor yooru ajjuma ji lañ ko jébbal nag boroomam ku ñuy wax nag sëriñ Sawru baax sëriñ Moustapha Si ak sëriñ Modou Si ñoo taxawu nag sëriñ Alioune Sow biñ ci noppee nag la ko sëriñ Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke jullee ñu denc ko nag ci wetu kañ ko jébbaloon nag ngir mu yar ko di Cheikh musa Ka biñ ko dencee ba noppi nag seede bi sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke nag seede ci moom muy mi ngi nii nii nag tëdd trondoo Seydina Alioune wi nag mi ngi nii tëdd dàll yi nga xam ne nii nag rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam moo ko soloon nag summi ko seexul xaddiim itam nag moo ko solaat ginnaaw bu ko seexul xaddiim nag solee summi ko sëriñ Alioune Sow mii nag moo ko soloon buñ ko summeeg léegi nag amul kenn nag ku ko sol seede yi nag la sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke nag seede nag ci moom soo delloo nag ci marché bii nga xam ne nii sëriñ Cheikh Ka moom soxna Bousso def na ko nag ci jàmbaari sëriñ Touba Cheikhul Xaddiim ji nag di sëriñ Alioune Sow mag làqoo lenn itam nag ci ay jikko nag yu mu yore woon taxawaay nag buñ ko taxawu ginnaaw nag bu mu génnee nag àdduna njaboot gi nga xam ne ni nag ñoom la fi bàyyi rawatina nag turandoo maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru wi toog nag ab toogaayam mu teelu nag lenn nag ci marché bi nga xam ne nii sëriñ Cheikh Ka Bousso defal na ko sëriñam bii nag di sëriñ Alioune Sow léegi ma wax fii bis ma muuru ca weeru kooga kooko mas la nguuru ka juróom benn la mbër ma tàggoo tisbaare ak mas la mbër ma sàngu bisub keroog la wàcc ab borom ca wàllu tisbaar dig leen a dànke na kilee di jàmbaar keroog na daa jug leen taxaw te julli tisbaar ja ñëw na léegi leer ya jolli Cheikh Ibra Sow julli moo fekk mbir ma muur ciy garaatam mu daldi tudd yàlla far wakkiirlu sant rasulullahi tey góorgóorlu sant Sëriñ Tuubaa defal ay rakkam waar leen digal leen kooko xaw may sikkam ndekete boo nax la mu dem fir daw si nit ñi di walwali di yuuxuy daw si fii xaami batasin la moo di xatma kay naka daldi yam mu dóor nu xatma loolaay lu mu junneeki ñetti téeméer ak yaari xat seetlu barab yooyu di jéem a dànke bekkoor bi am ci xat mi mën naa sànke bu dig keroog bar saxa jaa ngay teeru di sant yàlla naa ko kaay nu fiiru bu dig keroog bar saxa ñépp a booloo naa sunu gan gi mooy borom wusoolu bisub keroog bar saxa ñépp a maare naa marxaban gii gan lanuy siyaare naa marxaban yaa siidi aliyu ibnu waliyin raw nga ay waliyu ñu naa ko marxaban boroomi naafiu xasiida yey jolli ci barkeb shaafiu ñu naa marxaban boroomi lanwaar mi seexuna aliyu na lansaar ñu dem yëgal ko ahmadul diw mu wax ko Cheikh Abdou Lahad Khalifa mu dal na nañ ko andi law leen diiba bii bis la Cheikh Abdou Lahad di woote yëgal ko bokk yëpp kenn du wuute loolaay guddig aljuma laylatul xadar la dem fanaan fa Bàmba mook ahlul badar malaaka yaag rawxaan ya ak jinneem ya jooy nañ ko sàbbaal ko di war dongoom ya bisub keroog garab ya woon ca kër ga jooy nañ ko sàbbaal ko di war waa kër ga lii moo waral ab taalibeem farul jooy ngir jooy gaaw woon ba xol ya far doom ca daa dem sëriñ Aliou kooka moo bëri ndam sëriñ Aliou Sow nag ab xalifaam nag muy turandoo maam Thierno Ibrahima Fatim Mbacke ndaamal daaru di sëriñ Ibrahima Sow moo fi toog nag ci atu nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñu borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu waajuram boobu ak mboolem nag ñu mu séqal nag sëriñ Aliou Sow sëriñ Aliou Sow nag njabootam gi wutaluñ ko nag bis nag bu ñu tudde nag ak màggal am na bis yoo xam ni nag moo ko alxamisa lu mel ni guddik alxamis nag jàpp ajjuma lu mel ni guddik dibéer nag jàpp nag altene ajjuma ju jot tim nag danañ wàcce kaamilu alxuraan nag ci jàkka ji nga xam ni nag moom la fi bàyyi woon di ndigal loo xam ne niitam nag moom moo ko daa defa màggal yii nga xam ne ni nag yoonu murit itim nag dana ko màggal lu mel ni 18 safar lu mel ni itam nag gàmmu lu mel ne màggalug maam Cheikh antam Mbàkke lu mel ne itam nag guddik laylatul xadar ñeenti guddi yi itim sëriñ Aliou nag joxoon na ci itim di ko amale nag ci guddi yooyu itim nag ba tey itim nag ñu ngi koy wéyal itam nag ci dëkk boobu itam nag di daaru sow bis bii nga xam ne nii nag ci la génn àdduna di fukki fan ak juróom benn nag ci weeru koor xalifaam bii fi nekk nag di sëriñ ibrahima sow dana def itam saa bu bëccëgu fukki fan ak juróom benn nag ci weeru koor nag dikkee mu sant itam nag képp koo xam ni nii itam nag ci njaboot gi nga bokk fa nga nekk itam na nga des fa wàcce ay kaamil nag jagleel ko turandoo seydina Alioune wi bis yi daal mooy bis yi gën a ci njabootu sëriñ Alioune sow gi ñuy ñaan ca turandoo seydina Alioune wa ka sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Sow ba yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram te tas ñu itam nag ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajey alxuraanul karim amin